ndaje bi mooy ñun coopérative ñun ñun ñu nekk si kuréelu coopérative yi ñun ñu nekk ci kuréelu coopérative yi dañoo dund gis ñu ko dañ koo dund dañoo dund ne dañuy toogi yi at ci at pour am suuf pour mun tabax kër mais nag duñu ñu ne nguur gi dafa dar de depuis bu senegal doonee Sénégal ba tey daanaka d'ailleurs bu ñu déplacé capitale Sénégal jëlee ko Ndar indi ko dakaar boobu la nguuru Sénégal si jamono tubaab yi commencé réfléchir si lu mu naan politique de l'habitat social si suñu gis-gis bu ñu nee habitat réew nguur gi lu mu si jublu mooy jox nit ñi ab pakk ab kër gu ñuy dëkk rek te loolu réglé wul problème mu Sénégalais lu ñu bëgg bu ñuy ut kër mooy jóge si ndóol jógee si. ñàkk habitat du dëkkuwaay rek habitat ñun boo seetee d'ailleurs ñun bu ñu nee xale euh, xëy na dama xamul nan laa koy tekkee si wolof mais bu ñu nee xale bu ñuy jàng école bu ñuy wax mbirum kër daawu ñu ne maison daawu ñu ne case dañ daan na concession concession boo nee kër boo demee si euh, euh, si suñu dëkkuwaay yi bu ñu nee kër diw diw moom naanaka ab gaño yëpp. ñooy nekk si kër gi léegi boo gisee kenn nit la ñuy tabaxal kër d'ailleurs état baa ngi élaboré benn loi bu mu tudd benn texte bu mu tuddee loi d'orientation de l'habitat social si loi d'orientation de l'habitat social bi nguur gi dafa ne bu ñuy tabax dañuy tabax pour borom kër gi le primo ascendant le primo ascendant ñun suñuy waajur bu ñu daan tabax ñaareel ñoom duñ doon di boole seen bopp si kër gi day naan damay tabax pour samay doom. nguuru Sénégal dellu si ne léegi day tabax pour borom kër gi mais borom kër gi bu lax ko njaboot gi lu ñuy doon day tuumaranke loolu bokk na si lu tax ñu woote waxtaan bi ñaareel bi mooy mbirum suuf mbirum suuf nit ñi dañuy dugg si coopérative di cotiser fukki at fukki at ak juróom ñaar fukki at du ñu mun am pàkk benn day tax ba kóolute gu amoon diggante. membre coopérative bi ak ñuy diriger coopérative bi day commencé am problème président coopérative ma secrétaire général bi bu changé grand bureau ñu ne ah gis ngeen président mbaa présidente temps yi de moom gan yi laa lay sol mbaa laa du si mm, et cetera day poser problème bu demee ba am pàkk bi foog mu tabax mais buy tabax il faut que moom xaalis malheureusement xaalis yi banque yee ko yor banque bi boo demee si banque banque bi ne la il faut nga indi kayit. kayit buy firnde ne yaa moom kër gi kayit googu di nga defaat juróomi at mbaa juróom-benn at pour am ko boo boolee fukki at juróom mbaa juróom-benn nga nekk si fukki at juróom-benn bu fekkee ne borom kër gi bu muy jóg si mbirum kër fekk na mu am juróom fukki at kooku amatul salaire retraité la ah non bu fekkee ne am na sens retraité la parce que du retraité rek ñoo bëgg kër am na jigéen ñi am na ñoo xam ne amuñu salaire looloo tax daal ñu. Euh, dajale fii sunu membre yi pour ñu discuter ak ñëpp di ngeen gis ne jigéen ñi teew nañ fi lu bëri parce que également elles font partie des premières victimes des difficultés d'accès à l'habitat social. Mmh. Ndoye di présidente union régionale bu cees li ma laaj ci sawar tontu parce que union régionale bu Thiès 1995 euh, lañ ko créé te bañ koy créé fukki coopérative ak benn la ñu woon tey dem nañ ci. juróom comment cinq coopératives léegi nag euh, ci coopérative yooyu yëpp daf ci am coopérative yoo xam ni ay jigéen kese lañu mais am na coopérative yoo xam ni góor ak jigéen lañu spécificité wu Thiès mooy Thiès dafa jiitu. ci kuréelu coopérative yi ndaxte ba ñu commencé yàgg na te dañu am ay àndandoo yu ñu jàppale ba nga xamee ni non seulement dañu jàpp cees mais dañu jàppale yeneen union régionale coopérative yi jàpp parce que ñun tamit membre lañ ci union nationale te dañ ciy jàpp donc euh, une femme un toit boobu parce que dañu seet ni jigéen ñi comme ni ko président national waxe léegi ci victime yi lañ doon bokk ñi nga xamee ni ñoom ñoo des gannaaw ci lépp te kër nag gën caa li ñuy wax gën ci dëgër daal kën gën ci métti ndax kër pour nga am ko dinga am pàkk pàkk bu nga pour nga am ko fu baax di nga génne xaalis bu bari boo paree tabax ba dina yàgg ndax day laaj xaalis bu bari moo tax jigéen ñi ne dañu war a fexe parce que boo seetloo ci économie wu senegal jigéen ñi liñ cay des bari na diñ ciy def bari na jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi jigéen ñi ñooy joxe dépense léegi boo ko seetloo jigéen ñi ñooy peinture ñooy jënd meuble ñu ne nag lu tax jigéen ñi du ñu am seen këru bopp looloo tax ñu ne une femme un toit te fi mu nekk nag jigéen ñi farlu nañ ci ci côté FAPS def naa suñu payee Awa Cheikh dina ci jëlaat tuuti ndax moom mooy représentante FAPS si union régionale mais xam naa ni ñu taxaw lañu te du FAPS kese dafa am yeneen tamit coopérative jigéen yoo xam ni taxaw nañ ci ñoom ñëpp les femmes de Thiès surtout Fatimata Dia jiitle leen donc dafa am ay coopérative yoo xam ni jigéen ñi daal taxaw nañ ci xar nañ ci xaw ma seen tànk sër la ñuy wax xaw ma seen sër xaw ma seen tànk tubéy mais en tout cas taxaw nañ ci pour tey jii fu ñu nee kër jigéen ña ëppale ci parce que Sénégal boo seetloo li ñuy def yëpp jigéen ñee ci ëpp kon nag kër mi nga xamee ni comme ni ñu ko waxee en tout droit fondamental jigéen ñi tamit war nañ taxaw ci foofu voilà un peu voilà donc